ma jaajëf sa jëf ji rëy na neex na sa baay te neex na seex bamba neex maam cerno bàyyi sa baay meetar juróom fukki meetar fondement fa sa baay ju tol ni te néegab yàlla kenn du ko jaay xam ngeen na gor ngi jàmbaar jaa ngi farisa ngi yàqoo xilaafa gi maam cerno sigel nga sa bés boo xam ne maam Thierno Mbacke moom ibnu Cheikh Awa Balla Mbacke naka jekk moo koy def fii ci Bambey nga xam ne mboolem taalibe yi fi la ñuy daje loolu nag mu nekk lu am solo waaye du ma ci xaw a sori lool damay daal di jox rek ki nga xam ne mooy Alaaji Taala Jeng di jawriñ ci kër gi di taalibe ci kër gi di lépp ci kër gi moom mu wax naa bés boobu naka lay demee. sëriñ Ale bés bii di bésu sëriñ maam Thierno Mbacke. fii ci Bambey ah, te mu jëlee ko ci waajuram mu tedd wa di sunu yaakaar teeg ëllëg di sëriñ Cheikh Balla Mbacke moom Cheikh Ibrahima Faty jawriñu sëñ Bamba bés bi nag du ma ci sori ndax xanaa soññe rek na kenn du ko fàtte te ñëpp a ngi koy yàkkamti ndax bés bi ci bés yi jëkk ci ndigalal sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Faty ci wàllu yoonu murit ci fii ci département Bambey ak biir commune bi ci bés yi fi jëkk ca la boo ko sëriñ Seexaw Balla ànd ak sunu waajur yi di ko fi def boobaak léegi dem na ci juróom benn fukki at yoo xam ne yi lépp sëriñ Seexaw Balla di dundal lislaam ba doomam ju baax ji di sëriñ maam Thierno Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñëpp a koy ñaanal wante yàlla na ko dal te mu dund fi lu ko soob te dund lépp ci kaw njariñ ak télé bañ ci am mu robaatal nu doomam ji nga xam ne nag moom sëriñ maam Thierno di Seex Muxtaar Mbacke moom sëriñ maam Thierno di xaadimu rasool di Seex bi fab ko ko séddinu ko noonu waa département Bambey ci gàmmu gi nga xam ne da koo jële woon ci bàyyam saytu ko te teg ko ci loxo sëriñ Modou Makhtar te def ko jugoxe Sénégal yëpp fu ci nekk maam Thierno def na fa bis wante kenn gañewunu ci ci ki munu féetaleel di sëriñ Modou Makhtar yàlla na ko fi yàlla yàggal ak i magam ak i ak mbooloo mi dunu ci sori ñëpp ngi doon yàkkamti bisub màggal ak yi Bambey gàmmug yi nag ah noo ngi koy woote ci juróom-ñeenti fan ci di ñëw ya wi tey lii nu wër di mbooloo mi ànd fekk si sëriñ Modou Makhtar fii ci kër gu tedd gi di kër sëriñ Maam Thierno mu ngi soñu goxi Sénégal yëpp di soñu région yi di soñu département yi di soñu mboolem taalibe yi la ci des si ay waxtaan ak lim ci wàllu dëkk yi ak mi ak ko sama rak di sama jëwriñ di Alaaji Ibra Jeng noo ngi ñaan jam dikk ci jàmm jële fi jàmm delo fi jàmm te nu fekkewaat ko déwén te kenn te Maam Thierno mi nga teg na ko ci loxol doom ji di sëriñ Modou Makhtar ak njaboot gi yàlla bàyyi ko fi bàyyi fi sëriñ bi ba li nu ci bëgg yéene ko ci lépp yàlla dina ko defal noo ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf wa salaam. amin no fi amin en département ne alaji mam ceerno yasa min meeto yon fo wot a hot besa nene a moƴno fulandigin bo xane mene te tolluna te coɗna serigne modou maktar mbake te fos yene a yon fo xa taloɓexe fop a magalan meeke besa neene bes xaran bes cantina a ref a mban te ref le 9 mars te ngoyoote fop goor fu rew maak faxa caaƴ ngaƴeero leŋ ndax liggéeyin liggéey na andoona ye liggéey xadimu rasulin gon oxu andoona ye atnoora achadu an la ilaha illallah achadu anna mouhamadou rasulullah rek seigne modou moctar a xoyangin besa neene i ngoyoote fop maak faxa caaƴ goor fu rew i ngaƴeero leŋ jërëjëf ale ñu sant yàlla julli ci yenant bi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp di leen xamal ne bis bii nu jëm muy suñu bis ñun ñëpp ñu ngi woo mboolem jigéen ñu ne suñu ginnaaw bàyyiwuñu kenn. mu ñu jiitalee suñu soxna di soxnaay sëñ sëñ sëñ Modou Makhtar Mbacke ñu ngi woo ñëpp mboolem ku nekk ci Bambey ñu ngi lay woo bàyyiwuñu kenn na ñëpp takku nañ leen ko def nañ ko daan defee nañu takku nañu liggéey liggéey bi nañu ñëw jigéen ñi bu kenn des ñu ngi woo ñëpp. ñu ngi sant ñep ñu ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaan ci barkab sayyiduna mohammed barkab serigne touba barkab mam thierno cheikh mamadou muntaha khalif sa de mourid yalla fi yag te wër ñu ñaan serigne abbas mi nga xamne ko mo togal borom daru mufti euh ak ñewut ko borom daru mufti gep yalla ñu fi yag te wër di ñaanal suñu jambar ji suñu yaakar ji serigne mam thierno muy suñu wal te mat ko sekk yàlla bàyyi ko nun mu nekk fi lu ko soob ànd ak wér te mu am ngërëmam ci barkeb Xaadimu Rasuul li nga xam ne it mooy wax ji daanaka gi màggal du goo gunu baamu sax du baax a baax ndax kenn ku ne bàyyi nga ko xel ndax seex si nga ñoo xam ne ñoo aju ci kër gi gépp te nekk ci département Bambey ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor tool yi àllarba yi ak président daayira yi muy góor yi muy jigéen yi ak fu ku dib taalibe nekk ci département Bambey ak ku dib jullit tey wax asadu an laa ilaaha illallah ci réew mi ak bitim réew sëriñ maam Thierno jox na ndigal doomam ji nga xam ne mooy sunu wàllu di sunu cër di sëñ Moudou Muxtaar ngir mu yeesal bés bi mu mu mu waajal bés bi te ànd koog jëwriñ ji ak seex si ak taalibe yi bés bi nag mooy le 9 mars 2019 muy daaw bi nga xam ne mooy juróom-ñeenti fanu weeru mars. kon nak ñu ngi xam la ne koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu euh, dëkk yi ñu bëgg a tudd dëkk bu nekk fa dëkk ña fa dëkk nañu xam ne ñoo ngi tudd seen i tur da di boo limee tur yi da nga am ñoo jéggat wala ñoo tudd te ñëpp yem ci sëriñ bi ñëpp di ay jàmbaar tax na duñ mën a tudd tur xanaa sëriñ Dieng mi nga xam ne ba fi bàyyi Cheikh Amy Gueye jógee moom la ñu def see ñi def seex yi buñ ko tuddee tudd nañ ku di ab seex tudd nañ ku di taalibe tudd nañ ku so ci kër gi loolu nag moo waral ñu bëgg a tudd dëkk yi dale ko ci Bambey gi nga xam ne fi dañu ne bés bi te sëriñ bi def fi kër gu tol nii def fi jumaa ji teg fi doomam ji dafa wote bes bi ak waa Njaakaan ak waa Njaageen ak waa Tëgg Daara ak wa Mbooyeen ak waa Jàggal ak waa Njombo ak waa Njom Neex ak waa Kër Mbaar ak waa ak waa Kër Mbaar ak waa Seewlef ak waa Ngàcc Géy Ngàcc Ngoogam ak waa Bambey Séréer ak waa Sinjaan ak waa lulub waa nduur nduur waa njee waa mexe lambaay waa réew maawo waa réew maawo waa newraan waa njobeen xombal waa gaat waa saasal waa kuluk waa kër waa baaneem waa bëyti waa yaddullaahi waa waa njalab waa cilla waa pël masaas waa Sinja waa Mbadiane waa Lambaye waa Toubé waa Njalab waa Barasaan waa Daaru waa Mbaja waa Mbaja waa Njoor waa Gadd waa Tayba Kaloom waa waa waa Tayba waa Mbëri waa Ndondol waa Bari Ndondol waa Njaa waa Njaajax waa Ceeb waa Ndéem waa Wàjji waa Ngaaga koo xam ne kii dëkk yi ma lim yaa ngi yeewu ca dëkk ba ngay doom ngay nga ngari koo man doon di jëwriñ tur yees mënta tudd waaye dëkk yëpp tudd nañu leen ak ña fa nekk sëriñ bi bàyyiwut kenn loolu nag buñ ko waxee ku ñu tuddut ñu ngi lay jéggalu dëkk bu ñu tuddut mu ngi koy jéggalu waaye kat sëriñ bi bawut kenn bawut fenn bawut ñeen lam ko daan defe la ko defee sëriñ Modou Mokhtar mi ngi rekkam di jëwriñam sëriñ Atteex sëriñ Madou Mafos sëriñ Ahmadou Karim Bambey sëriñ moor ñii nga xam ne ñooy doomi sëriñam te wax na ko bëgg a démb ci appelam gërëm leen ci ñoom la tàmbalee woote gi soxna Faati ak mbooleem kuy rekk ju jigéen sëriñ bi bawut kenn sëñ Sirim nga xam ne sëti Seex Awa mooy mag ci sët yi ak kuy sëtub sëñ Seex Awa Balla bi mu ngi wax ne sëñ Maxtaar mu ngi wax ne sëriñ bi nee woon nañ ñëpp dale ko ci ay bokkam ñim bokkal maamaaram ku dib taalibe ku dib wëlëre ku dib xarit li ci des daa ko bàyyi ak ñuy wax topp si ba gannaaw waaye bés la boo xam ne nag sëñ Seex Awa Balla moo ko defoon fii woo ci bawul gépp dinu ci defal xéewal daanaka mën naa wax ne sax moo doon buntab tukki bawol dañ daan wax mun daal bu sëñ bi jàngaloo ba noppi rek kuy tukki tukki kuy tukki boo demee da nga dem ak jàmm di nga dikk ak jàmm mu mu jig nu lool maam Thierno yokk ko ñii ngi tukki ci réew mi ñii tukki bitim réew lu fi nekkoon yokku sëñ maam Thierno yàlla fa yàgg kon sëñ Modou Moukhtar mi mu booleel tabaarakalla yal na yàlla bàyyi ko nun waaye xam na lan mooy bëgg-bëggu baayam xam na lan mooy nañ nañuy def ba am ngërëmal baayam mu duñ ci duñ ca omat da moonu gën a sonn nëpp lu guddeeg bëccëg mu ngi bëgg dégg nga koom rek sëñ bi xolam seet ndax borom seet de luñ bëgg nu am ko kon nag ñu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi woo fii ci Bambey kër gii kër maam Thierno ci Bambey ci wooteeb sëñ Modou Muxtaar mi nga xam ne moom la sëñ bi teg lépp ci loxoom mu jiite màggal gi saytu màggal gi ànd ko ki bokkam ànd ko taalibe yi nu mu daan mel yàlla ko weesu ren ci barke maam Thierno ngay romb te sëriñ bi ñëpp a ko bëgg ñëpp koy liggéeyal ñëpp ko yaakaar waaye ñii ma xam ne ñoom laa ciy dolli muy waa Son muy waa Kuluk muy waa Ñaxab muy waa Kër Koli muy waa Njeng muy waa Tasaar muy waa euh, muy waa Njaareem ñëpp ñu ngi leen di woo euh, waa jàggan nga xam ne gii ah ak njomb sëñ bi def na fa juróom-ñeenti tamxarit yoo xam ne yii saxaaba la ko jox ndigal mu di fa tamxarite te mën naa ne dëkk bu ne ak gox bu ne sëñ bi am na fa wàllu bu mel noonu wu toll noonu kon bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu kenn ñëpp la ñu woo ndax eh, nijaay Cheikh Diagne ca eh, eh, Cheikh Diagne ca Mbadiagne Sambawa di jëriñ ju mag di sunu kilifa ah day koo xam ne kii Cheikh Diagne mi bu fi teewee teewal na ko fi waaye kon day fekk jotaay bii ndax mun moy sunu kilifa kon waxna ne sëñ maktar bawut fen boy juróom sunu sëriñ maam Cerno bawut ken ñu ngi woon ñëpp na ñëpp dikk ku dik di nga nga nga fekk sëriñ bi di nga fekk sëñ maktar di nga fekk seeni bok tay tey lu waay fas bo dik ci bés bi di ko yobale ndax bés be tol nonu sëriñ be tol nonu ñu ngi del di waxaat sëñ maam Cerno yàlla na fi yàgg sëñ Maodo Mountakha khalif sal de mur yàlla fi yag sëñ Abbas yàlla fi yag assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di ko di ci jiital sëñ si sëñ maxtaar ñu nag ñu ngi wax ci turu sëñ mafaal gom mi nga xam ne sëriñ bi dañoo booleek moom ngir ñuy soññ jëwriñ yi sëñ mafaal nag comme nekku fi danañ tuut sax ci wax ci kàddoom waaye rek ñu junj di wax ne mbooleem ñi nga xam ne demoon nañ ci ñoom te di leen soññ ci màggal gi lañ leen waxoon moom lañ leen doon waxaat li nga xam ne bëggoon nañ faa demit te mënuñu faa dem kàddu gi ñuy yëkkati mooy ndigal li nga xam ne moom moo nu fa waroon a indi muy sëriñ bi daal dafa wax ne genn bëgg rek la muy màggalug Bambey màggalug Bambey nag day cër yoo xam ne maam na moo ko séddale mboolem njabootam kenn ku ci nekk mu dël la fenn jox la bés bis yi nag ba mu ubbee ba léegi nit ñi ñu ngi dem di fekk ji ay bis waaye bis yëpp ñun bis bii rek lañu am muy bisu Bambey te suñu lu mu neex neex sama da koo dàq ñun Bambey lañu am sëñ maxtaar lañu ñu sëriñ bi booleel moom lañu am sëñ maxtaar mi ñu sëriñ bi booleel nag di cër boo xam ne mat na sëkk cër ndax koo xamante ne bi sëñ fàllooy maamam si xaw bàllaay maamam kun ko cërale sëb cër tuutut kon waa Bambey war na ñoo xam li ñu am ba bu sëriñ bi wootee buñ geesoo gis sëriñ bi sëriñ bi nag li ko gën a yitteel ci bis bi mooy màggal gi guddi la ak bëccëg ni ñuy dundale guddi gi ñu fexe ba koy dundale bëccëg bi ni ñuy dundale bëccëg bi it ñu koy dundale guddi gi te sëriñ bi dafa mas a wax benn bis ne màggal gii de fanaan naa bi dina Ndakaar keroog ma ma fa fanaanee dañoo toog ba 4 heures sëñ maam Thierno génn ci baas bi daal ne bis boobu de sama xel dana yar ci màggalu Bambey ma xalaat ne nii sëriñ bi génne ci baas bi su ni génne woon Bambey boo moytuwut gàcce dana am kon na ngeen fexe ba ni ngeen di ñëwee ci bis bi guddi gi ngeen fexe di teew ci baas bi ndax sëriñ bi mane na nu ne mën naa toog ba xaaju guddi mu génn ci baas bi te su boobaa su fi fekkuti nit yaraangaam lay doon te taalibe war te jox sëriñam lu koy yóbbee yaraanga kon sëriñ bi nee na yéen ñëpp góor jigeen mag ak ndaw dina metti waaye bu ngeen yendoo ci liggéey ba ngoon dellu kër yi yeeslu ñëw ci baas bi damay insister toujours ci Mafal ak maam Thierno jeg moomu ak Jabel ak Alaaji Daam Guèye ndax ñoom dañoo ñëw fii diiru ñetti at ne dañoo bëgg nag jàpp ci daayira bi jàpp ci màggal gi ba ñun fi ñuy dem fépp dañ fay gis da nga xamante ni bii ñëpp góor ak jigéen dañuy wëlbati ko àndandoo ñëw tey jii kon nag doonu doori seex rek mënuy doon ay taalibe bi yéene leen a jàppale ci màggal gi sasoo ay yoo xam ni ñoo koy def di berse nag togg di jël euh, xeex yëpp kenn ku mu nekk ñu bind fa nga nekk dina la fayut say teraanga ba mu doy sët lu des ca seen boo boobee cerno mi and ak Jabel ak ak Mafal ak eh, alaji dam Gay ak sëñ makhtar waxu ba ci sëñ mam cerno jox ko ko adiyee commencé tàmbali wat bu jëmaat ci seen adiyaay déwén loolu dama ci and ak ñom daw and ci ak ñom ren lepp département bi rafet lako kontaan ci bekk ci lol kon sëñ cerno ak Jabel ak Mafal li ngeen do liggey na ngeen ko continuer def ko bu baaxa baax noo ngi leen di sant noo ngi leen di gëreem bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi jalle sant yalla bu baax di julli ci yenen tabi sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Cheikh Awa Balla te ñaanal sëñ maam Thierno yal na yàlla guddal aw fanam doole guddal aw fanam te bàyyi na fi sëñ Moxtaar mii sama borom dolli koo barkeel ci barkeb sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Fallou maamam euh, ñun fu jëm rek mooy euh, ñi nga xam dañoo bokk ak ñoom dëkk bi ñuy wàllu daayira yi nekk ci dëkk bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di soññ. di len xamal ni amuñu lul sëñ Cheikh aw Balla amuñu lul sëriñ maam tierno amuñu lul sëñ Mokhtar mi ndax mom lañu sëñ maam tierno fetelel te mat ko kon kep ko xamni ki suñu wëllëre nga suñu xarit nga suñu mbokk nga ñu ngi lay wo ci bis bi nga xam moy bisub bésub Cheikh aw Balla bi ko maam tierno defal fi ci bambay ñu ngi wo itam euh, mboolem ñi nga xamni ne ñoo di aw jigen te nek ci dëkk bi département bi ñu and ñew liggéey liggéey bi na nga xam lañ ko daan liggéeyee taxaway biñ ko daan taxawé ci walu togg yi taxawé ci ci walu liggey bi yépp ñu and ko taxawé ko nañ ko daan taxawé soxna fa say jañ eh, dafa xamna dafa am galankor daaw mo wax ci kaddu jigen ni ñu ngi koy soñu mok soxna mbayen gay suñu nday ak mbolem jigen ni nga xamni ño nek ci dëkk bi te yaakar serigne mam ciorno seen borom ko ci yaakar serigne mam ciorno ño ngi soñu ñepp ño ngi ko itam ñi nga xamni ñoy ñi eh, alaaji bra doon doon lim kun ci fatte tu tuddu ñu la nga xamni eh, manam lim kulem jéggi mbajaan samba awa ak wa suñu mbokk yi nga xamni ñoy suñu mbokk mbokk séeréer yi nga xam ne saa yu ci tool bi ñoo ciy man ñoo mën ci liggéey ah kon ñu ngi leen di soññ bu baax a baax euh, kon euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, te xam ne kuréelu daayira yi nga xam ñoo ne ci dëkk bi yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn mbooleem kuy wax ahbatu rabbal alamin ñu ngi lay xamal ni maanaam kuréelu daayira mooy bu naafi bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem daayira yi ci département Bambey sëñ Mourtala Samb di seen déwriñ ñu ngi koy soññ di soññ mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñoo na ci dëkk bi di jànkatu xasaayit ñëpp bàyyiwunu kenn kenn kenn kenn képp koo xam ne yaa ngi kuréel di jàng ay xasida ci daayira ci dëkk bi daal ñoo ngi lay soññ di la xamal ni bés bi sunu bés la ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëtub sëñ Fàllu Mbàkke galas bàyyu mbeen ñu se muy sunu cër nag sëñ Maxtaar am yar am gin kenn ku ne mu jox la sa cër taalibe bu ne mu jox la sa cër woyof tooy nag te waroon a dis gan waaye noonu lañ ko yare ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp ci di leen ziara di leen nuyu ci turu sëriñ Maam Thierno ñu ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko te wéral ko moom mi nga xam ne ginnaaw bi ma amee ndigal ay kilifaam di sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te ak sëriñ Abbas xalifa borom Daaru Muxti yàlla na fi yàgg tëwër gannaaw ba ma amee seen ndigal ci eh, yeesal bis bi nga xam ne way juróom sëriñ Cheikh Awa Balla radiyallaahu anhu moo ko daan def fii ci Bambey doon ko ànd ak mag ñi nga xam ne ñoo ñoo ko daroon mu di ko def ba ba mu ñibbi àjjana mu di ko taxawal ba ren jii kon sëriñ bi ginnaaw ba amee ndigalul ñooñu mu jox ñu ndigal na nañ ko woote ñu di ko woote ci turam woote bi nag di ci jiital ñi nga xamne ñom la bokal sëñ jaw Balla ñuy jabatu sëriñ jaw Balla ni ko laaju lima legi di sëriñ Moxtaar ba ci sëñ Mamor ak sama fati ak mbolam jigen ñep ñom la ci jital ci woote bi ndax ñom momako bok ndax bi sëriñ jaw Balla kon sëriñ dal leen ci leen ko fàttali ñom ñep leen ko yegal di leen ci wo mo ca toppit mbolam ñi nga xamne ñom la bokal dal mu tu gep mu den ci wo di leen ko yegal di ci woo tamit mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifay diine yi nekk ci dëkk bi di waa kër Sëriñ Tuubaa ñu nekk ci dëkk bi te Sëriñ Seex di jiitu ja moom mi nga xam ne mooy mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa gi fi nekk mooy seen kilifa sëriñ baa ngi koy woo ak Mamor am sëriñ Mouhamadou Mourtawa ak sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne tuddoon naa ko léegi waaye comme ñu ngi ci dëkk bi di rekk sëriñ bi di ñu bokkaat si Thiaw Balla ak sëriñ Abdou Hakim ak serigne ibrahim ibrahim ibrahim mbacke ak mbollem mbokk bi yo nga xamne ñu ngi ci dëkk bi ñëpp ah, ñom ñëpp serigne baa ko yegal ak serigne bashirou mbacke ak rakam kon ñoo ñoo nga xam ñoo ci jitu di wo tamit nak mbollem talibé yi nga xamne di magi talibé yu nekk ci biir dëkk bi te nañ ko serigne ñaan nañ amna ci ñoo xamne ak ñaan ko serigne tiaw bala desand fi ba nga ni ñom ñoo ñu day mag ñu ñaan yalla gënal ñu fa yagal te wëral leen serigne dal nañ koy yegal ak seen njabot di ko yegal mbollem talibé yi nga xamne ñu ngi ci dëkk bi yëpp ak ñu ngi ci département bi ñu ngi ci région bi waa Ndiarème la ko tàmbalee Ndiarème ba mboolem région bi ñëpp sëriñ daal nañ ci woo di ci woo mboolem fu jullit mën a nekk ci Sénégal ñu ngi la ci woo képp daal koo xam ne ab jullit nga di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah sëriñ daa nga la ci woo ak foo mën a nekk te la xamal na bis bi ñoo ko bokk ndax sëriñ Thiaw Balla ba mu koy taxawal jullit ñëpp taxawal mu taxawal ko kon fu waay mën a nekk rek sëriñ baa nga ci woo bëgg ñu defe ko nañ ko daan defee di soññit jëwriñ li nga xam ne euh, naka jekk ñoo koy taxaw ku nekk xam nga na nga ci daan taxawee sëriñ baa ngi la koy soññ di góor cee te xam ne ni mu koy waxee waxtu nekk yàlla boo koy lebal duñ la doy na waaye bu la nay fay na bu lay fayit amuf moo ko def du tax mu bàyyi kon nañ ci gën góor góorgóorlu baax a baax kenn ku nekk si ci daan taxawee rek nga yokk ko ñu fexe ba sëriñ bi bëgg ci ndax mu bëggee rek nan duñ bëgg kon nañ ci góorgóorlu baax a baax kenn ku nekk def sa jom def sa passeef mo ci daan taxawale nga yok bu goor ñi ak jigen ñi di mag ñi ak ndaw ñi ñom ñep serigne baa ngi ko soñu baax di ca woy wa daarul manan ga nga xamne serigne sëñ jaaw kat fu ma sa dem yakal l'islam moo ko fa yóbbu waaye nag daru baan la dëkkoon kon daaru maan gogo ñu leen wo di wo mbooleem dekk serigne jaaw bàll yep di tuubaa roof ak daaru manaan daaru min ak daarul wahab ak ndakaaru mbol ak tiwaawoon mboolem baba garaas mboolem fu serigne jaaw bàll ma sa dem di yakal l'islam am fa am fa penc wala mo am fa keur ñu leen ci wo ndax xam ñom ñoom ko ñom ñep ñu leen soñu baax baax di soñ woo mboolem jullit ñi ñu ko waxe di woo tariqa yi nga xam no noo bokk lislaam bi te l'islam bi lepp di ben ñu nekk bokk ñom dëkk bi te am dëkk ñom dëkkin wu rafet ñu ñu di sin mbokk tidiane ñom ñep di waa kër Seyd Alhaaj Maalik ñoom ñëpp ñu leen ci wo xam bis bi seen bis di wo suñ mbokk qadir yi nga xam ñam am nañ seen cër bopp bo xam am ñu jot ñu koy taxawé di ko taadama seen jitalen ñom ñep ñu ngi leen di wo xam na ne bis bi dellusi na te xam dal bis bi seen bis kon daal ñu ngi soññi ñëpp di woo ñëpp ku ñu ku ñu tudd ku ñu tudd daal na nga xam ne suñu yéene moo doon tudd la wala ñu ñëw ba sa kër saafoonteeg yow yëgal leen képp ku nekk ci département bi daal te kilifa ak diine sëriñ baa ngi lay woo ak tarixa boo mën a bokk ña ngi lay woo rawatin nag ñi nga xam ne cheikh yi nga xamne ñu ci département bi nga xamne lañ yor seigne touba leen ko jox ak keur gu mën a bokk nak ci yoonu mourid ñom sëriñ baa leen koy wax xamne bis bi seen bis la dañuy bañ tuddu di yegg kenn waye ñom ñep sëriñ baa leen koy yëgal loolu kon ñu gëna farlu wat soñaan ñep rek loolu ma nga xamne ñu ko doon wax ci tour sëriñ bi di sant ñep nak di sant seen taxaway ñi nga xamne ñu koy taxaw ci kër gi ndax lepp digalu sëriñ bi joxe loolu sama walu bop ma ngi sant taalibe bi yëpp ndax digal lu ma sëriñ bi wax bu ma leen ko waxe nañ ca taxaw nañ ca war a taxawee danañ ca taxaw duñ te duñ ca gëstu dara kon loolu am naa amal naa leen cant ci wàllu googu am ba leen ciy sant te ñu ñaan yàlla eggal luñ see jàmm te luñ ci daan def mu gën a yokk. di ñi nga xam ne it ñoom laa bokk sëriñ bi te sëriñ Sidi di suñu mag di suñu kilifa ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgalaat ci tur sëriñ bi xam ne maa ngi ñoom képp ci yam sëriñ bi lañ sëriñ bee moom bis bi ndax moo fi nekk sëriñ Cheikh Bara te bi sëriñ ko taxawee kon ñoom taxawaay bu ñu ci daan taxawee rek ñu ngi leen ko yëgal di ko sàkku ci ñoom di ci sàkku seen ñaan ba yàlla defal na ci ndam lépp te mooy ñaam ci ngërëma sëriñ bi rek kon loolu lu ma ci fàtt rek ñu ma ko loolu mooy xam ne bëggoon nañ koo jottali ci turu sëñ maam Thierno di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi mu wàll te mu wér moo kilifaam yooyu nga xam ne ak mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp ba lislaam mën a mën a fu bëgg mu egg fa rek mu mën ko faa gële ci barke Sëñ Tuubaa di sant mboolem presse bi ñi xam ne teew nañ fi kenn ku nekk daal gis nañ ñu ngi ciy taxawe yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te ñoom ci ndam lopp lañ ci daan uh, lañ ci daan nam ci barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gërëmaataat bu baax BCM TV ñu ngi koy sant moom itam yal na yàlla jàppale yéen ñëpp waaye kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa nag Sëriñ Tuubaa lay fay ku ko lebal takkusaan mu fay ku ko lebal ker mu fay la guddi sëñ Touba demee noonu rawatina nag maam Thierno Mbakke moom maam Cheikh Balla Mbakke surtout maam Thierno Birahim kooku mooy jàpp ñibbi gi. bana bil Mustafa wal Fadilu wa bil Lamini wal Basiri naadilu ya rabbana bi Seyxi Abdillahi wa Seyxi Ibrahima xillulaay yaa rabbana bi seyxi abdullah adi wasaalihu lam yakko mina